ayca ñi ngi ci biir rond bi gis ngeen drapeau yaa ngi nii gis ngeen mooy yi gis ngeen euh, yi nga xamante ni mooy yi nii sifflé lépp a ngi ci biir daal waaye damay xool oto yi ndax oto du nit oto du nit ndax 19 heures dama war a supporter Sénégal donc il faut ma def ndànk ndànk maytu oto yi nii lay demee ñëpp a ngi ci biir sem bi noo def bàyyi ci jàmm ñu sant yàlla naka affaire yi ça va waaj match bi waaw bu baax a baax ban la match bi 19h. waaw dafa leer bëgg naa sénégalais bu xam ban heure la ñuy joué. waaw gis nga loolu dafa leer parce que daf noo ñor mhm. victoire rek lañ bëgg. Mhm. waaw waaw tey loo xalaat ñaata bii lañ war a marqué. Ah, victoire daal lañ soxla waaye lu nu gën di marqué rek muy gën di. baax gën neex waaw gis nga. kon man ñoom ñëpp sama joueur lañ. nañu liggéey nañ liggéey rek. ban classement nga xalaat Sadio ñu tegaat ko. waaw comme euh, la fois passée deuxième mi bi. Mhm. deuxième mi bi. mooy euh, remplaçant yi mu defoon deuxième mi bi. loolu baax na trop et puis buñ duggee ci terrain bi nan doon ay gaynde nan wane jom football nekkul joueur yi nekkul entraîneur bi entraîneur bi mën na bañ a xam dara mais joueur yi mën nañ am jom nekk ay gaynde ay gaynde tey dañoo bëgg dëggantaan ay gaynde wala c'est ça quoi. Mhm. voilà loolu la. kon daal ndam rek. ndam rek jaajëf jaajëf. ay ca ndam rek comme ni ko sénégalais yëpp waxee kon 19h jàpp nañ ne incha allah match bi dina neex match bi dina bëri doole waaye Sénégal dinañ dóor dóor bu rafet ci kàttanu yàlla kon di daa topp ma ñu daal di yëngal gësam ci biir ndax tey Sénégal a xewle. ayca Ibou tey sama chéri laa taxawal ndax nee naa la moom dama bëri ay jëkkër ah mais chéri Coco gis naa la nga sol maillot ba pare nekk ci marché bi di jaay euh, lépp ngir waajal bis bi nga xamante ni daf noo ñor muy tey 19h Lions yi war a jouer nga taxaw fi tey nan nga dundee bis bi ak client yeeg yooyu waaw xam nga sant yàlla rek di ñaan ci yàlla yàlla defal ñu comme ñum ñu ko daan defale rek yàlla may ñu ndam lu sedd guy ñun moom boo ñu gisee ñu habillé wu nii ñun douzième gaynde leen doon koo gëm dañuy doomi réew mi gëm réew mi bëgg réew mi di réew mi ndam mi sunu ndam la euh, te yàlla na nañu yàlla may ndam li ñu ba nu indi coupe bi incha allahu rabbi ñu feete ko ci stade bu bees bi yàlla nañu ko yàlla defal vraiment parce que Aliou Cissé dafa ci équipe nationale te ndam mi ndamu ñëpp la ñun moom lañ ko bëggal te moom moom rek la bëgg kon ndam moom yàlla nañu ko yàlla defal. waaw yàlla na ko yàlla. mais njaay mi mi ngi dox. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. ak léegi ñaata mayo nga jaay. non mayo moom mi ngi dem rek mi ngi dem macha allah. waaw waaw benn ak waa non mi ngi ci saag bi mais dañ ko def noonu waaw. doon ko suba ak léegi dama bëgg nga xaymal ma ñaata nga jaayagul. jaay naa 5 mayo moom. jaay nga 5. te mayo benn ñaata 12000 12000 benn 12000 kon damay laal dépense balaa maa dem. yow da ngay laal dépense. yow dëgg la dëgg la ayca mi ngi noonu ma fekkaat sama ñaari frère yi waxtaan kenn kee ngi sol mayo Sénégal kenn ngi yor mbiib ah sa jarbaat la tey ngeen war a supporter Sénégal noo def frère. waaw sant yàlla bu baax di am yaakaar am confiance bu baax a baax a baax ne max bi bu soobee yàlla dañ ci am ndam bu soobee yàlla. yow xam naa dama lay nduru beneen réew. waaw nduru na beneen réew nag loolu nga mixé. waaw dama mixé xaw a métissé. waaw dama mixé foofu tey noo gisee li nga xam ne moo war a daw 19 heures. li nga xam ne mooy daw 19 heures li ñuy def mooy xanaa ñun ñëpp ñu toog comme mënuñu dem Cameroun. ñu toog suñu tale ñun ñëpp di ko seetaan di ñaan yàlla Sénégal jël ndam li waaw. boo sañoon Aliou Cissé tey day def yan changement lay def ci biir terrain. waaw xam nga dafa nekk lu nga xamante ni bii football bu amee ñëpp dañuy nekk entraîneur mais ñun ñëpp dañ jël euh, xalaatu suñu xalaat yëpp boole ko muy xalaatu Aliou Cissé mi nga xam ne moom moo yor ndax ñun ay gumbalan moom moo yor suñu mhm. nit nag boo ko dénkee da nga koy wóolu mhm. li nga xamante comme moom moo nekk ak ñoom moo leen di entraîner. moom moo gën a xam li nga xam ne moo baax mu teg ko moom lu mu teg rek ñun ñu ngi ci ginnaawam. ñaata bi. bii moom benn sax baax na li am solo mooy nan gagné. gagné rek waaw nan gagné. kon jeex na waaw incha allah bi doo ko mbiib ma dégg. ayca <laughs> doo ko demee tonton tonton kaay tonton tonton mënul nekk mais tons tons noo def. sant Serigne Touba ba yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu tons sa mooy rafet na. waaw yaa sa bracelet. waaw mais noonu mais tons tey noo gisee match bi noo koy waajee. rajax rajax rek ma gisee da maa ngi forme boo macha allah am confiance boole ci. waaw waaw. le moral mhm. man kay score moom garaawul quoi moom naa am 3 points yi rek. 3 points qualifié final ban nga bëgg ñu moom dans les buts comme toujours côté bi Salif Ciss côté bële Bouna Sarr axe bi Habib Diallo ak Sawaay ak Koulibaly digg bi tey Cheikh Kouyaté dafa war a ñëwaat jël place ah, ànd ak Nampalis ak Gana waaw ci kaw rek waaw loolu laa gis. kon tey ala accu lay doon. ala accu moom kay rajax rajax laa. ban heure nga war nii damay pare léegi bu yàlla fii ak 30 euh, minutes yooyu. madame jëli teer bi ñibbi comme man fu may ñibbi dafa xaw a sori Malika laa ñibbi madame jëli teer bi Malika ñoom pare nañ seen i drapeau xale yeeg ñëpp fi mu nekk pare nañ man sax mën naa ko bañ jiitoo maa ngi ci biir yaa ngi ci biir da nga ne ba tax xale yi rek <laughs> waaw tey nag sama xarit yi taxaw sama mais dama bëgg ngeen zibilé ñu xamee danoo kontaan Sénégal déggu ma dara rek 3-0 ñaata 3 0. yow 6 0. classement ban nga may tegal yow. 4 4 4 2 laa lay tegal. 4 4 2 laay tegal classement bi laa bëgg tegal moo ko bu demee naan bu demee naan. kii dafa mel ni combat yow classement ban nga xalaat. fii oh, nu mu tudd Abdou Diallo Koulibaly ak euh, Saliou Cissé ñoom ñëpp lañoo war a départ. waaw ñoom ñëpp ay départ. waaw na neex daal ay gaynde la daal. yow loo wax yow kii kan la kii kan kii kan ah, kii Nampalys Mendy la. waaw ah, mooy sama joueur. mooy sa joueur waaw kon yow mooy sa meilleur joueur. waaw ah, kay. loo ci ci ci ci match tay bi. match bi ndam rek. waaw 3-0 la ko gars yi dóor. 3-0 waaw da nga koy dóor 3-0. war parce que match bu ñu fàttali. 5 heures 5 heures 5 heures la cinq heures pire ñibbi gars yi. cinq ndam li dafa war a yaatu. dafa war a yaatu yaatu a gis naa ne fële da ngeen fa teg benn coupe bu mag. waaw pour ne gaynde yi ay ponk lañ quoi kontaan nañ si ñoom trop. dañuy zibilé <laughs> ayca kenn ku nekk ni nga gisee match bi kenn ku nekk noo nar a dundee tey li nga xamante ni mooy xew-xew bi nga xam ne Sénégal yëpp mi Sénégalais war football tey équipe nationale ma sant ak sama benn tonton noo laa bëgg nga wax ma ci mystiquement loo xalaat ci match match bi euh, ma gis daal mm. euh, li ma gis ko dama tëdd gis yow dama tëdd gis ko man waxuma oh, victoire waxuma waxuma victoire bu tey mais man coupe bi si boppam. ñu gis affaire bu garaaw. mais coupe bi ni ma ko woonee mooy sama góor si toog nii. paa waaw. noppam droite bi buñ ma ko dagalee tuuti joxuma ko ma nii ma indi leen coupe ko si jox la seen. sérieusement nopp bi laa gis. lii da ko gis jaxral. loolu moom makki na ko jaay doole. jaay ko doole dagal ma noppaa paa bii. may indi leen coupe teg ko si loxo seen loxo. teg ko si loxo lu leer laa leen wax. mais noo gisee tey waajaayu match bi gis nga match bi xumb tey drapeau yi bëri na fi mayu bëri lan nga fi gis. man waxatuma demi final. final nga gis final bi laay wax. mais ba loolu tax ngeen teel teg seen coupe fële. mu ngi ne ñun moom commencé nañu fete coupe bi. yéen pare ngeen. waaye déggul ma loolu. tey match bi ñaata ñaata. waaye yàgg na may nag nop bi laa soxla. non nopp bu ñëwee rek lépp leer. ma jox leen coupe bi. kon jeex na waaw kon à suivre. bi la laaj moom kon président nopp bi lañ laaj léegi nan dem ci coupe bi. ayda nee naa leen kenn ku nekk ak ni muy supporté ba tax na ñu fekk fi sunu grand Ali waykat bu mag bi ndaanaan bu mag bi te kenn ku nekk ak ni muy encouragé équipe bi moom nag tey dafa nar a encouragé Sénégal si waye leen lu neex ñu daal di ndax tey zéro stress danoo bëgg tey gagné ba mu leer. mais nam naa la. waaw maa la raw soxna si. maa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax alhamdulilah. xam nga lu ma pour mu bañ a gudd rek lan ngay wayal lion yi. yi nan leen jàpp gaynde yi jublu ci bi ndax re làmb ji ñooy borom Sénégal nañu joleen ñëw leen ñu gañe ah Sénégal a ngi leen ñu gaane réewum teranga gaynde njaay mooy suñu dàkkantal oh! encouragement encouragement lii bëgg nañ ko parce que ñun amuñu lu suñu réew ba tax na la kii moom il faut ma boole kook Aba mu ñëw plateau ndax dafay toj tonton noo def. waaye sant rek. ba yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah léegi ba tey yaa ngi fi nekk di séddale moyens loolu la yàlla dogal. Mhm. la yàlla dogal Sénégal gagné rek. Mhm. ñëpp kontaan. Mhm. loolu rek mooy bés bi tey. waral nga jël sa xaalis di ko dépensé di jëndal nit ñi moyo di leen jàppale pour gars yi sol ko tey lan lan lan nga ci nar. waaw mais xam nga nag euh, demi final la ñuy wax final. final coupe. jaar nañ fi bee passé war fee jaaraat nan ñaan rek ñu génne ci tey na ñëpp jàpp ñu ñaan seetaan Sénégal gagné ñu fo ree du yomb nag nañu nañu muñ rek am patience ndax nag Coupe d'Afrique lañ wax ku ne da fi nekkal sa réew am loo koy utal du yomb mais wóolu nañ xale yi am na lu ñu def ci ñoom jaar nañ fi xam nañ yoon bi li ci def nag chance rek la yàlla na yee change bi fii Sénégal loolu la ñuy ñaan te incha allah loolu mooy am. am nga ci yaakaar bu baax. ndam rek. ndam rek. jeex na vee bi rek. ayca vee bi rek ayca mi ngi noonu kii sama frère la dinaa la daal li ma sol moo ma ko jox ah mu ne moo frère ma fekk ko moom tamit ci marché bi tey dama lay laaj mystiquement mystiquement laa lay laaj tey loo gis mystiquement ci marché. gañe rek. ah confiance rek. yéen pare ngeen seen cumbukaay ndax dégg naa tax ren tey jii nii match bi yéen sax da ngeen pare yéen supporters yi rek da ngeen pare mystiquement. jaaykat yi nappkatu jën yi. xulookat bi geesmaan bi ñëpp a pare. ñëpp a ndam rek. Sénégal day gaye. mais loo leen jàmb da ngeen jàmb ay xaatim da ngeen jël ay nen yéen ngi saraxe suba est-ce a ngi saraxe. Kole bàyyiwuñ dara. barke sëñ Bamba bàyyiwuñ dara. yéen a ngi jox ndox génne ndoxu sedd yeeg pomme yeeg. pomme new carotte suukar lépp. kon da ngeen jàmb ba mu saf. ba mu saf saf. kon supporter mystiquement danoo pare. Sénégal tey Sénégal ca kaw. ca kaw ca kanam rek.